asalaamualeykum wa rahmatullah bokk yi Baye Cheikh mooy nuyoo tey ziar bokk yi lu xew wala lu xewate lu def waxu luy ay di jàmbal du dañuy wax ne lu feeñ ci sëy bi nuyo woon na ca ngoro la atum 2014 lañ mujjee wote bokk moomeel yi fii keroog bulletin blanc yi bëri nañ de waaye kenn bàyyiwu ci xel li wér te wóor mooy askan wi wax na te li mu wax lu weex tàll la te mat naa bàyyi xel de 2014 nuyoo woon na kenn fayu ko deux mille vingt deux dafa jéggi dayoo bokk yi askan wi nag mel na ni lu mel noonu lay fàttali nañu ko déglu te jël ci ay matukaay 23 janvier atum mille 2022 ñu ne dañuy tànn ñi nga xam ne ñoo war a jiite conseil municipal bu Touba waaw bu dee Serigne Bay tànn du ñu wotee ndax tànn na ba noppi bu dee Serigne Bay tànn lu tax liste bii nga xam ne dañ koy woyee listub Serigne bi photo Serigne bi newu ci mandargay sëriñ bi newu ci te dégguñu fu ko waxee dégguñu ki muy waxloo fu mu ko waxee bu dee Serigne tànn mbokk yi lu tax ñu indi benn xët mu weex ci wet gi bi ñu wotee ba noppi mbokk yi bi jant sowee li ëpp ci kayit yi ñu dugal ci biir urne bi ay kayit yu weex la mbokk yi mët naa laaj de téeméer boo jël la ëpp juróom fukk ak lu topp bulletin blanc la ana lu waral li mbokk yi ndax matuta defuk jàngat ndax ka ñu jiital la ndax ñu ñu seen ci liste bi te waruñu cee nekk la ndax waaye politique yi ñu dugal ci biir ndax du nit ñu nosee liste ba ana ku ko tànn ana ci yan critère lañ leen tànnee damay laaj rek mbokk yi ndax bu buñ tànnoon ñañ war a tànn jiital ñañ war a jiital dugal ñañ war a dugal bulletin blanc yi dana ci bëri damay laaj rek mbokk téeméer boo jël juróom-ñetti fukki ya doon ay bulletin blanc ci tànneef boo xam ne dañ naan la tànneefub sëriñ bee waaw tànneefub sëriñ bi mbokk lu ñu ciy wate li wér te wóor moom murid yi duñu nattable bëgg-bëgg sëriñ joxo joxoñom amul lenn lu sëriñ biy digle ñu di ko wate wala ñu di ci laaj xalaat mbokk dëkk bi ci wàllu koom moo jiitu dëkk bi ci wàllu situation démographique moo jiitu ci wàllu diine ñi jiitu ñañuy tànn di leen tàbbal ci liste bi war nanoo xool ba xam ana lu tax ñu leen fay tàbbal ndax am nañ compétence bi mbokk yi loolu lépp ay laaj la yoo xam ne faw faw ñu def ak taxaw seetlu indi ca tontu mbokk yi yan critère la ñu tànnee liste bi kenn ku ci nekk la tax ñu tàbbal la ci biir war nañ koo xam ndax sa man-man la ndax sa jub la ndax sa mën a wax la ndax sa mën a tontu la ndax défendre nit la wala ndax taxawu dëkk bi la ak défendre dëkk bi la mbokk yi téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ya wan gannaaw liste bi du sëriñ bi de nañ ko seet ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite du sëriñ bi de nañ ko seet ci ni nga xam ne noonu lañ ko nosee du sëriñ bi de nañu ko seet ca fa nga xam ne fa lañ ko nosee mbokk yi jot na ñu def ci ak taxaw seetlu ndax dégg nañu askan wi ba muy jooy te yegg seeguñ fii ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci dëkk bi mat naa bàyyi xel de mbokk yi askan wi wax na de li mu wax nag lu weex tàll la yéen yi nga xam ne yéen a jiite liste bii nga xam ne li ëpp ci askan wi dañ ko wan gannaaw ban jàngat ngeen ciy def yan matukaay ngeen ciy jël ndax mënees naa jiite mbooloo moo xam ne li ëpp ci ñoom ànduñoo ak yow mat naa ba xel de mbokk yi ndax mat ta jubanti kilifa gu baax ne neewoon na ma taalibe yi de loo leen wax bu jógee ci sëriñ bi day dugg ci xol yi directement loo leen wax nag buñ ci amee siiki saaka mat naa def ak taxaw seetlu waaye li wér te wóor mooy li banku oom yi bankul xel yi la woon